alhamdulillah rabbil alamin fi nga xam ne nag fi laa bëgg mujje mooy ak jagle goo xam ne ñi ko woote woo bari na ñi ko bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ñu baree bari dañ naan la man de sama yoon wi nga xam ne moom rëdd yàllaa ma ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa gis mu jox ma yoon wii waaye bi ma ko joxee it moo ma ni yoon wii am na ngëneel sàngam ak sàngam te képp ku la ci topp dana am ngëneel sàngam ak sàngam bu dee biir bàmmeelam ci barzax lay nekk boo xamante ne dana am xéewal sàngam di tudd ay xéewal yu mag te bu ëllëgee yowmal qiyaama bu nit ñi dekkee day dugg aljan kenn du ko régler kenn du ko mbugal moom ak ay doomam yu góor moom ak ay nangamam tudd ci ñu bari ay ngëneel yu dul jeex keneen ñëw daan ne man gis naa yonant yonant bi jox na ma weneen yoon yoon wi boo ko toppee da nga am ngëneel sàngam man ci saa jëmmi bopp yàlla jagleel na ma ngëneel sàngam ak ngëneel sàngam sama dëkk ba ma dëkk yàlla jagleel na ma ngëneel sàngam mathalan ku fa dugg say bàkkaar rot wala kuñ fa suul sa yaram araam na sawara walla boo fa ñëwee man ngaa bañ a dem màkka wala euh, ak yeneen xeeti ngëneel yoo xamante ne kenn ku ne ci ñun mën na koo wax tey bu dee ñeme na ma bu ko ma Samba waxee wala ma dem ba wax ko ci jamono bii ñuy dundee jamono bii ñu may wax ak yéen bu fekkonte ne nit ñëw na woote woo ngëneel yu mel nii ne damaa gis yonent yàlla jox ma ngëneel yu mel nii kan moo koy weddi ñu baree bari dañ koy weddi waa léegi yow mi ko weddi benn waay Mood Jaw wala Omar Seck woote woona lu mel noonu tey daan yàlla jox na ma sama dëkk ba ma dëkk mathalan muy mbajaar képp ku fa ñëw lu nga dem mag man mii sama jëmmi bopp yàlla jox na ma jagle goo xam ne ku jàkkaarloog sama jëmm ji sa yaram aram na sawara walla ku topp sama gannaaw julli sa yaram aram na sawara wala sama dëkk ba ma dëkk muy mbajaar képp kuñ fasuul sa yaram araam na sa wara tey bu ko muut jóg muut jaw waxoon ak Omar Seck ku ko ñemee weddi man may taxaw weddi ko ak képp dépp jullit bu fer ijji ci alxuraan ak sunna lu tax nga koy weddi boo ko dëggalee yow boo dëggalee Omar Seck ak muut jaw mi wax loolu tey boo ko dëggalee danga ma indil firnde luy firndeel ne loolu moot jaw wax ak Omar sek deug lam deet bu fekke ne dang ko koo weddi daan ne ah ñii demuñu fenn ñi li ñu wax du non lo wax ba weddi len fa la loola laay wax ba weddi ku sa wax lu mel noonu lutax tax mbokki jullit yi nañu bàyyi xel yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ginnaw bi mu fi joge ñaata fitna ak musiba mo xew gannaawam saaba yi seen biir saaba yi mbàyyi seen di rayante ñu baree bari mbolo mu bari mu dul jeex faatu ñàkk seen bakkan wa këram ay sëtam ñu ray ci ñu baree bari lutax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dellu siwul wax ak ñoña mu ne yow mi ya jaar ci yoon yow mi jaaro ci yoon teg leen ci aw yoon bal jox leen ay mbir yo xamantene ay ngeenel la yu raw yu yi nit ñi di tudd tey ne yàlla jagle la leen ko ci gis gu ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu faatoo moo tax may wax mbokk yi ni bu leen jeexalati seen temps ndax loolu moom lañ daan def même man mii dama ko def ba tàyyi mooy di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy wax ne gis yonent bi sallallahu alayhi wa fekk nelawoo fii ci àdduna ginnaaw bi mu faatoo waxtaan nañ ci ay waxtaan yu bari yu gudd yoo xamante ne da jeexal sa énergie ci ne ndax manees naa gis yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fekk nelawoo fii ci àdduna ginnaaw bi mu faatoo ci ay firnde yu tege ci alquran ak sunna koo ci demal waxtaan ak moom da ngeen di wax lu yàgg waaye du la indil firnde lu taxaw maa ngi teewlu nag mboolem xadiis yi nga xamante ne moo ñëw ci buntu boobu mboolem xadiis moo xam dafa wér moo xam daa wérul yu ñëw ci buntu boobu maa ngi koy teewlu bu baax du la ci indil mukk lu leer moo tax mbokk yi ma leen di wax ne ginnaaw boo waxtaanee ñoom ci bunt boobu ndax mën naa ne kam munta nekk <laughs> débat bi du foofu débat bi mooy ngeen dem ca gannaaw ki neen mën naa nekk nga ni ko waaw bu ma nee nekk bu ma nekk bu dee nangul naa la loolu du ma la ko nangul waaye bu doon nangul naa la ko léegi boo gisee yonante sallallahu alayhi wa sallam nelawoo fii ci àdduna ginnaaw bi mu faatoo ndax sharia dana nangu nga ni jox na ma nangam ñu xool nangam jooja nga ni moom la la jox nga ni am na ngëneel sàngam ak sàngam ak sàngam ñu xool nangam jooje ca na nga waxee ne noonu la la ko joxe ak ngëneel ya nga xam ne moom nga wax ne moom la am te yàlla jagleel la ko ci gis gi nga gis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu faatoo fii ci àdduna ñu xool gisuñu ko ca la yonante jàngaloon saaba ya damay damay dogu ab te julit bu ne daa war a dogu ne loolu am loola saxul ci sharia lu tax ndax loolu bu amee ci sharia rek mooy yow da ngaa bëgg a woote ne kon yonent bi lañu waxoon ci tàmbali ba kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla santoon ne ko jottuli li ma wàccee ci yow loola defu ko te moom nee na woon ndax jottuli naa saaba yi ne ko waaw kon saaba yi bañ ne waaw booba ñooña lañ wax amul yonent bi ba ne ndax jottuli naa booba xam na ni moom am na lu mu jottuliwul loo xam ne ak mbar feggu la gu yàlla di jaglel ko xamne dana ñëw jëmmi jamono mbokk yi nañu bàyyi xel ci sunu diine diine la ju borom bi tabaaraku wa taala da matal sëkk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam xam leen lépp laata mu fi jóge lépp lu yiw wuy nit ki yàlla diko sorele sawara xamle na lépp lo xamantene safan la buy sorele nit ki sawara buy sorele nit ki yàlla diko ko sawara borom euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xupp na xeet wi te bunt boobu bu wubbi ko buñ wubbi woon buntu boobu ne ah nit mën naa ñëw ne ah gis naa yonent bi jox na ma nangam ak nangam am na ngëneel sàngam ak sàngam mais loolu moo tax tey diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu baree bari indi ci ak pëccëxoo gu rëy ku ci nekk yaa nga lawwi jëme sa côté ne yonent bi defal na ma jagle jox na ma jagle gii maa ko gis jahran su ma neexoon tey ma wax ko ñeme rek la laaj bu ma ñeme woon rek wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal na sama dëkk bii ngëneel yii yonent bi defal na sama yoon wi ngëneel yii ma indi sama yoon rëdd ba mu jekk ndaan ne nag yoon wii nag ku bëgg a am ngëneel yi ci ne danga ciy tënku doo ci yokk doo ci wàññi <laughs> waaw yoon yooyu nga xam ne dañuy woote ne yonent leen ko jagleel ginnaaw bi mu fi jógee ginnaaw bi mu jàngalee saaba yi luy yiwuy jegele yàlla ñu ne yonent jàngal na leen loolu nanguwuñ ko ca yokk nanguwuñ ko ca wàññi boo ca yokkee wala nga ca ñu ne la boroom yoon wi defaroon na yoon wi ba mu jekk ba mu mat sëkk ñëwal rek tënku amul lenn loo ciy dugal loo ciy yokk ak loo ciy wàññi loolu nangu nañ ko ci yoon yi ñu sos ci diine waaye nanguwuñ ko ci diine ji yàlla indi ci dëgg jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu xew bërki démboo njaay la walla boog tey jii euh, laa seetaanaat benn vidéo boo xam ne nit ka cay wax nee na yoon wi muy wax ci aw yoon moo xam ma yoon wa muy wax wu mu doon mu daan ne ki nga lépp lu la ci mag rek bokku ci lépp loo xamante ne euh, yaa ko ci mag wala moo la ci mag xawma nu mu ko waxee bokk ci maanaam lépp lu ñu ci sos ci yoon wi bokk ci <laughs> loolu de moom la yonent bi waxoon ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dañu woon lépp loo xam ne dañ koo sos ci diine rek loola boo ko defee yàlla dala koy delloo léegi ñu koy jëfee ci yoon yi nga xam ne dañ koo sos ci diine te duñ ko jëfe ci diine ji yàlla yónni woon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mat sëkk nangu nañ ku sos ci diine ji ñu sos yoon yooyu yoon yooyu ñu sos ci diine ji nanguwuñ ku ca sos ndax ñu ne boroom yoon wa defar na lépp ba mu mat waaw boroom diine ji muy yàlla moom dafa defarul diineem ji ba mat mbokk yi nañu delloo si sunu xel nañu jàngaat sunu diine fer ijji ci alxuraan ak sunna ñu xam ne ni diine ji léegi ginnaaw bi fi yonent bi jógee li la ci nit rawee mooy mu njëkk laa xam li yàlla ak yonent bi digle ginnaaw bu la ko xamalee ba noppi demal jëfe ji ci cellal tënku ca na ko yàlla ak yonent bi jàngalee boo ko defee danga yegg ci ngërëmal yàlla bari na ay misaal wax nañ ko ba tàyyi du ñu guddal di ñaan borom bi tabaraka wa taala boole ñu defal tawfiq wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin